mottali kóllëre gu ñu seqoon ak Abdoul Aziz la woon euh, di di wax tamit ne euh, lii jot a am ci Sénégal jarul commentaire Abdoul Aziz fee mu nekk soxlawul kuy commentaire Abdoul Aziz ku ko ñaanal yàlla la soxla ñaan yàlla boobu nag ak kóllëre googu mu seqoon ak sunu kilifa gii muy Pape juuf loolu moo tax tey mu bàyyi lépp lu mu jàppoon mu ne dina ñëw. ngir matal kóllëre gu mu nag ak Abdoul Aziz ndax Abdoul Aziz yàgg naa toog ci Sénégal nag di sant Pape Diouf di gërëm Pape Diouf ngir dëkkandoo di gërëm Pape Diouf ngir mag gu mu magoo ak Pape Diouf waaye di gërëm Pape Diouf aussi ngir rakkoo gu ma rakkoo woon ak Pape Diouf kóllëre googu nag ñun ñëpp moom la ñu war a sàmm loolu moo fi indi tey Pape mu ñëw nag ngir jaale famille bi yëpp nag waaye yaay booy yow moom yow lañ war a njëkk a jaale bu Sénégal yëpp ñàkkee yaay booy yow yaa ñàkk parce que yaa ñu andiloon Abdoul Aziz yàlla jaare ko ci sa jëmm yow mu ñëw yàlla dogal dogal bu mag bii nga xamante ne bi ñun ñëpp nag ah nangu nañu yàlla dogalam donte nag bu ñu sañoon Abdoul Aziz du demee noonu fépp fu leen féete woon rek yàlla am na kàttanu mën leen féete fu ko raw ñu ngi ñaan yàlla na leen yàlla féete fu raw fi leen Abdoul Aziz féete woon ah, wax ji nag du bari ndax man mii di wax ak yéen tey ci Sénégal yëpp yaakaar naa ne xam nañu maam Makhtar Gueye bu Jamra maam Makhtar Gueye nag day waaj a dem à la retraite man mii di doomu ginnaaw raay man la waa Jamra tànn pour ma représenter ko sur le plan international pour taxawu Jamra donc bu Pape di ñëw man dafay rafet loolu ci man ma ñëw ëndaale njaalu Jamra waaye ëndaale aussi njaalu euh, population bu ginnaaw raay yëpp waaye dama doon introduire grand bi euh, nga xam ne ñun ñëpp suñu kilifa la Pape kenn du ko dégg ci loo xamante ni dañ ko ciy xeeb Pape du wax lu ñaaw pap Diouf du dox ci lu ñaaw Pape loo ko gis rek farata lay dox donc tey bu ñëwee di jaale si famille bi ñun ñëpp dañ ci bëgg ndax moom li ko war rek moom la def donc lii rek moo amoon en guise d'introduction donc di leen ñaanal yàlla aussi yàlla na yàlla yàggal taxawaay bi Abdoul Aziz aussi fee mu nekk yàlla na ko fa yërmande yàlla jiitu yàlla na ko yàlla xare arjana moom ak képp kum fa fekk ak ku ko way fekk ëllëg ndax ñun ñëpp nañu waajal suñu bopp yàlla na yéex waaye fa Abdou Aziz euh, tëdd ñun ñii ñëpp fa la ñu jëm yàll na yéex kon nag ñu ngi leen koy jaale bu baax a baax yaay booy di jox Pape kàddu gi incha allah jërë ngeen ñu ngi lay jaar di la jox sa wàcc waay di la jàll li nga xamante ni moom la bokk Pape Diouf bisimilah. waaw euh, salaamaaleykum maa ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi sallallahu alayhi sallam euh, di wax ne tey moom yaay booy suñu sañoon duñ fi ñëw ñëw bu mel nii bu sañoon beneen ñëw lañ fi ñëw waaye nag li suñu maam yi di wax rek jàmm ak pexeem yàlla mooy dogal wax dëgg yàlla ñi ngi ñëw di ànd ak yow tiis wi di bokk ak yow naqar wi ndax bu dul dara ñoo bokk ginnaaw raay sunu yaay xamante di demlante démb tey soog a ñëw dara musul ñaaw lépp rafet kon tey Abdoul Aziz Euh, ku ci nekk ci ñun rek mën nga ko jaale sa morom pap waaye yow mi nga xamante ni comme ni ko pap waxee yaa ko meññet naqar wi ak tiis wi xam nañ fi mu toll ci yow waaye nag sant yàlla ndax kàddu yi rafet na gis nañ ni ko ku gëm yàlla nga Abdoul Aziz mu nekkoon sunu rak ñu koy jaale waa àdduna ndax àdduna laay wax su ma nee adduna nag mooy adduna bi yëpp mm-hmm. ndax ñëpp ñoo ko jooy Aziz fi nga xamante ni yàlla ubbil na ko ci aar mm-hmm. mu commencé réaliser carrière fi la dogal bi wàccee waaye nag jàmm ak pexem mm-hmm. yàlla ak dogalam et ñun nag dañu ñëwoon pour jaale si la jaale si sunu bopp c'est vrai que ay artistes lañu waaye nag dafa am nun nu yare nit nu yare mooy sutura nit nu yare mooy dal donc dañu ñëw rek pour jaale si la di wax sunu rakk ji yàlla na suuf oyof ci kawam yàlla na ko yàlla xare aljana ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax sama papa daf daan wax naan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax naan lumb mi ngi ci doomu aadama mhm. su yéwénee léppam day yéwén ñu ne ko rasul lan la mu ne xol te àdduna bi yëpp seere nañ ne Abdoul Aziz xolam dafa rafetoon trop àdduna bi yëpp seere woon nañ ni mu meloon ci yow mi yaayam te ku ne xam ne doom ak yaay li ci war ak ni mu mel kon yaay booy ñu ngi lay masawu di bokk ak yow tiis wi di bokk ak yow naqar wi di ko jaale famille bi di ko jaale artistes di ko jaale presse bi ndax wax dëgg yàlla ñi nekk ci réew mi ak ñi nekk ci bitim réew donc lii rek laa ne woon dinaa ko jàllale ci presse bi waaye yeneen yi nga xam ne nag moo ciy des mu a dox sunu diggante ak moom loolu du jar ñu koy siiwal ci presse bi dëgg yàlla nag àdduna moom euh, lépp loo gis ci àdduna rek euh, dafa laaj sutura kon vraiment ñi ngi leen di sant di leen gërëm waa presse bi ndax demu Aziz yéen tax ngeen liggéey ngeen ci liggéey bu am solo wax dëgg yàlla yàlla na leen yàlla fay waaw yaay booy vraiment ñi ngi lay masawwaat encore euh, di wax nag maa ngi sàkku suñ pap ñu defal ko nga joxe dog ndax loolu rek moom moo ci am solo fi mu nekk nii loolu la gën a soxla mm-hmm. ñu ñëpp ñu ñaan mm-hmm. defal ko ay xul nga joxe dog bi bu ko defee bu ñu paree rek ñu mën a gisante ak sunu yaay ci incha allah ci sutura incha waaw donc ginnaaw bi euh, l'ambassadeur waxee wax nga waaye waxal nga Sénégal Pape wax nga waaye waxal nga aussi le monde culture wax nga waaye waxal nga ñi bëgg Aziz waaye waxal nga ñi sopp Aziz euh, li nga wax nag loolu la Aziz li ñu des ak moom du dara lu dul ñaanal ko yàlla puisque nag delloo nañu kàddu boobu dañuy wax képp koo xamante ne bii mën nga ko ñu def ñetti istighfar ñu tuubal yàlla ndax ñun ay jaamam lañ dañuy tooñ beneen bi mooy ñu def fatiya bu sell boole ci ak xul euh, huwa allahu ahad man nag bëgg naa ñu teewlu ko ñu def ko fukk ak benn te buñ ko gaawtu beneen bi ci topp mooy ñu julli ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci euh, euh, maanaam salaatu bu waay mën mu def ko ñu addiyal ko rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ngir yool bi mën a fekk ji Abdul Aziz donc ñu ngi wax astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah baada auzu billahi min ashaytani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi ddin iyaka nahbudu wa iyaka nastahin iyaka nahbudu wa iyaka nastahin iyaka nahbudu wa iyaka nastahin ihdina sirata almustaqima sirata allazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala dalin bismillahi rahmani rahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi rahmani rahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi rahmani rahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi rahmaani rahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi rahmaani rahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi rahmaani rahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi rahmaani rahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi rahmani rahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi rahmani rahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi rahmani rahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu walam yakun lahu walam yakun lahu kufuwan ahad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun fi dunya wa salaamun fi l-axir wa salaamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bismillahi rahmani rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبح ناصر الحق بالحق ناصر الحق بالحق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره حق قدره حق قدره حق قدره حق قدره حق قدره حق قدره ومقداره العظيم إن الله والملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Abdoul Aziz Ba yal na ko yàlla yërëm Abdoul Aziz Ba yal na ko yàlla yërëm Abdoul Aziz Ba yal na yeggalee ndawam ci aljanay firdawsi Abdoul Aziz Ba yal na yàlla teg loxo ci njabootam Abdoul Aziz Ba yàlla na réccu li mu doon def ci àddina yàlla miy yërëm te am yërmande yàlla na nga ñu yërëmal Abdoul Aziz ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam